bismillaahi rahmaani rahiim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokk ni déglu assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillaah walhamdulillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar allaahumma innaa nasaluka xayra maa fii haadal yawm wa xayra maa ba'd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 jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si li mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix suturaak ci ak poche def dara sëñ Mbàkke démb bi ñu yëkkati jataay bi te nekk ci tomb bu tudd al waqtu fi xayaatil muslim di ci ànd ak ak docteur al imam Yusuf al Qaradawi yal ko yàlla yokku wér ñu agsi woon ci tomb bu am solo mooy yitte ji sunna si yonent bi sallallahu alayhi jox jox temps kon yonent bi sallallahu alayhi wa du du du jàngal ku yàq temps bu fekkee dégg na njàng ma du yar ku yàq temps bu fekkee dégg na yà njàng ma moo tax mu wax nu hadiisu démb bi te Maas ibnu Jabal nettali ko mu ne ku dekki ëllëg ba nga bala ngaa jóge fi nga taxaw danga tontu ñeenti laaj sa dund gi ci loo ko jeexal danga ko tontu sa dund gi ci loo ko jeexal allahu akbar ko tontu sa ndaw gi ci loo ko ràppal da ca tontu sa alal foo doon jële ak foo doon dugal danga ci tontu sa alal foo doon jële waaw moo tax sa alal foo doon jële ku bari la sonn fa ku tibbi milliard den ci gën a sonn ndax buñ ko dee benn bennal million bu nekk rek da fa yàgg waxuma laa buñ ko dee def par cinq cent wala par cent franc cent franc foo jëlee cent franc yi foo jëlee cinq mille bi foo jëlee dix mille bii foo jëlee nangam danga kooku koy def dinañ fa yàgg waaye ñu laaj ko euh, sa xam-xam loo ci jëf waaye mbokk yu ko dégg laaj bi xam ne ñaar ñaari tomb moo ci am solo moo ci gën a am solo mooy sa dund gi sa jeunesse jeunesse gi dafa naa nun la professeur waaw ala li xaal ku ci ne da tontu ñee ne man ci nangam laa nekkoon ñi ne man ci nangam laa nekkoon ku ne tontu ku ne tontu waaw waaye mbokk yi loolu de ku ci ne war na ci gis boppam toog xool ne man fi ne sama dund gi ci lu ma lu ma ko def mu man lu ma fi defagum lu concerné yàlla diine ji moom kañ laa ci mës xëy mu gont moom ndax mas naa ko cee def ndax li ci sunu mag ñiy def di gor ay àll di samp ay jàkkaaki juma di gas yi teen man fu ma ci toll waaw fu ma ci toll sëmp ay daara defar nit ñi fu ma ci tollu ah waaw waaw loolu nun ñépp a ko war laaj sunu bopp ba bu nu laajee laaj bii nu tontu tontu lu jub ci loo nekkoon nga wax ci li nga nekkoon léeg nga yónni gone mu yàgg fu ñëw nga ne ko ci loo nekkoon waaw ci loo nekkoon <laughs> waaw rekk tabarkal léeg gone tontu ñu toj nopp ba léeg-léeg mu tontu kenn du toj noppam ndax fa mu nekkoon day fu mu war a nekk mu tax ma ne mbokk yi addis boobu ñëwagut ma nga ca kanam waaw mu nga ca kanam waaw ci loo nekkoon moo tax ci dundu dunduk nit dafa am marxalatul quwa benn marxala bu tudd marxalatul quwa bayna daafayni diggante ñaari néew doole sunu borom dafa dugal doole ñu ne ha mu ne daa am ci de daafu tufula ak daafu shayquuqa daafu tufula mooy zéro at zéro at ba quinze ans daafu tufula jeex benn mara benn étape jeex daafu seyxuuxa mooy cinquante cinq ans ba ca morgo ba waaw ñaari étape yooyu ci seen diggante nag dafa am benn maanaam diggante quinze ans ba cinquante cinq Oustaz Ahmed Dame moo koy firee noonu yàlla na ko yàlla yokk wér dafa am lu fi nekk quinze ans nga tàmbali am seize ans dix-sept ba baa ngi am cinquante cinq foofu foofu mooy force bi nga xam ne mooy laaj bi tax ñu ne la sa ndaw gi ci loo ko ràppal bi nga amee quinze ans ba cinquante cinq ci loo nekkoon ci loo nekkoon waaw question bi nag daañ ko laaj booy booy Dakar yi daañ booy yëpp lañ koy laaj ñoom ab lay Ndaw dañ leen laaj euh, bi nga amee quinze ans ba cinquante cinq ci loo nekkoon waaw dañ ko laaj ñoom ab lay ndaw boy yi boo demee ci saar wu tudd Ruum ay cinquante quatre la borom bi indi laayu jooju waaw la borom bi indi laayu jooju laay ji war a doon lu ñu gëstu gis ko jànkati alxuraan yi àgg ca malheureusement malheureusement waaw eh, ndeysaan sunu sunu jenn mag jenn mag ndeysaan Sobel Jóob <laughs> waaw nga dëkkoon fële ca Mbooro ndeysaan mi ngi ci Dakar moom daal fi ne foo ko séen <laughs> magakub téere bu def suurtu Yaasin <laughs> bu ñëwee na la ñaanal ma bala ma dugg bàmmeel mokkal ko ma néew benn programme boobu rekk daal la am ndeysaan mooy mooy mooy na man suurtu yaasin wala boog na mokkal suurtu yaasin kenn mësu ko gis rek waaw moom daal ak teg ci rek baat yam cay teg ndeysaan Sobel Jóob yàlla na nga mokkal suurtu yaasin waay <laughs> waaw yàlla na fi yàlla bàyyi ba nga mokkal ko nee na bis bu ko taree <laughs> waaw nee bi bis bu ko taree mu ne ko xam ah, mu ne ma jaral na ma woote grand théâtre tari ko ñépp dégg ko ndeysaan <clears throat> na ko fi yàlla bàyyi ba mokkal ko waaye waaye gis nga daafu tufool ak daafu seyxooqa ci diggante bi nag fi la farce bi nekk déggal alxuraan allahu lasi xalaqakum min daaf thumma jaal min baadi daafin quwwa fa ma jaal min baadi quwatin daafa gis nga dégg dégg nga fi diggante ñaari daaf yi tudd na fi quwa quwa mooy force bi ba ca nogay di tollu àttan na paanug ndox non seulement àttan na ko waaye waaye du wax kaay yen ma waaye am na as ba bu ca tollee dootul mën a yen boppam day wax kaay yen ma ak kaay ni ma waaw sunu root ma maag yaastu waaw sunu root ma maag yaastu di ko gunge te ñi ma muf bu paan gi feesee ma yen ko ndeysaan nu ànd dem ca kër ga ma ma yenu siwa bi <laughs> bu nu àggee nu sotti waaw sotti ci bërigo bi dem rootiwaat booba kër ga amul robinet robinet mbedd dafa am tabarkalla te bu bëccëgee day xat bu guddee ba ñëpp tëdd rek mu gunge yaas mu rooti ndeysaan nu ànd rooti <laughs> yal na yàlla yërëm waaw waaye foofu yaasu day toll foo xam ne fii duutul mën a yenn boppam dem ba àttanatul paan noo rek la noogay mii fi ne est-ce que àttan na paan actuellement waaw ak tànkam <laughs> yooyu muy jàmbat rek xam naa bu sama cinquante deux yi ñëwee peut-être ma mu ma yóbbu ko fuñ ko ko dàmpale jarul nag dem bitim réew ndax da yàq xaalis waaye mën naa ko yóbbu fuñ ko ko dàmpale waaw defal ko ci gréesu bëy <laughs> xaw ma nag dana wéram déet ndax màggat gi def cee bokkaale daf cee àndaale waaye mbokk yi bi nit ki tollee ci daafu bu njëkk bi muy daafu tufoo la ay waajuram war nañ koo taxawee defal ko éducation boo xam ne bu agsee ci alquwa maanaam bi xale bi nekkee ci tuufu la muy ndaw juddu nàmp fer am rak bu tollee ci yooyu war nañoo def ci moom ëllëg joo xam ne ci foofu lañ koy defee ci moom ba bu agsee ci shayquuqa te mooy mage cinquante cinq mu am lu mu ëndaale loolu moo jur école yeeg yépp moo ko jur waaye est résultat yooyu gone yaa ngi koy am résultat bi nga amee quinze ans maanaam bi nga amee zéro ba baa ngay am quinze ans niñ la fi préparé waajal la waaw def la nit niteel la def la ko doylu def la ko sérieux def la ku baax ndeysaan def la ko fonk nit def la ko fonk ay waajur def la ku bëgg lu baax def la ku bëgg tuyaaba foofu lañ koy defee gone gi at tarbiya wa yuzakkihim su ko defee su agsee ci mage mu doon mag mu sérieux mag mu baax mag mu yiw mag mu bañ lu bon waaw mag mu bëgg lu baax mag mu bëgg tuyaaba mag mu fonk jàkka fonk nit laahu akbar hmm? foofa la ñuy waajale ndaw li ak ku bëgg a bay da ngay ruuj waajal tool ba ku bëgg entreprise da ngay def dangay def étude dangay ngay étudier li ngay def mbokk yàlla na jàmm yàlla nag ci ak seen njaboot yàlla nañu fekk déwén te weesu ko ñoo ngi ci soor ñoo ngi ci weeru janvier ñoo ngi ci temps ñoo ngi ci temps waaw wal tantur suñ maa dama li ghad suñu borom ne na programme leen mu ñëw ci beneen tomb professeur Djibi mooy lislaam yi muy santaane dafay dëgëral importance su temps waaw lislaam yi muy santaane dafay dëgëral importance su temps waaw ndax yim nu sant ci nekk ay farata lu ci nekk daa am waxtu wow bu jutut def ko jaaduwut bu weesoo bu weesoo def nga lu normalul waaw eh, ci kanam tuuti ci kanam tuuti man mii di wax ak yéen ñi nga xam ne yéenay déglu danañ dégg noddukat ba naan assalaatu xayru mina nawm six heures vingt-deux ñun ñépp nu dégg ko waaw assalaatu xayru mina waxtu woowu am lu ci nu ci sunu borom sant mooy sangoog jàpp ak dem ca jàkk ja julli fajar ak julli suba six heures vingt-deux jot na nan tàqalikook lal yi tàqalikook mbàjj yi génn kër gi dem ca jàkk ja na nanuy génn kër yi bala noo génn kër yi nanuy dem ca jàkk ja bala ñoo yóbbu ca jàkk ja na nuy julli bala noo jullee laa ilaha illallah ma waxaat ko assalaatu xayru min annawm na nuy génn kër yi bala ñoo génne kër yi na nuy dem ca jàkk ja bala ñoo yóbbu ca jàkk ja na nuy julli bala noo jullee waaw waaye tabaarkàlla am na ñoo xam ne jamono jooju ca la ñuy gën a mën a nelaw te du leen déranger am na ñoo xam ne ñu ngi nekk ak seen jabar te duñ ko rus duñ ko duñu rusu jullee ci kër gi am ñu nekk ak seen jëkkër te duñ kurus rus hmm. bés ngi ñëw ñu génn la kër gi nga ba ñu génn ñu génn la ko ban heure lañ ne ko génne xam ndax lañuy ñuy génneeg ruux wala feebar xam ndeysaan tubaarkàlla eh, góor ga santoon sëy te nekkoon rajo dunia dëkkoon ca Pikin dëkkoon ca te daan waxtaan ca rajo dunia waaw bis ba muy dem hôpital ndeysaan ñu ñu otom dab sama oto comme man li may daw bariwut mënumaa dawal otom dab sama oto mu droite chauffeur ba wàcc waaw mu wàcc nuyu ko laa ilaaha mu wax wax ju daw yaram ker lañ mujj a gisante ndeysaan hmm? moo tax heure boobu mbokk yi yonent bi nana képp ku jóg seytaane fecc nay pas-pasam nga jóg képp ku jógut yëgal ne seytaane moo la moo la yeew ca lal ba moo la attaché def naa lañ koy wax léeg-léeg su ma rombee sapeur yi ñuy jël ku ku ab malaat wala ci accident sama tànk yëpp laxasoo léeg-léeg ma lox ba duutuma mën a dugalu première lu xew mooy ki ñu tëral ci kaw lal boobu takk kook ceinture ca dënd ba ci ndigg léeg ci tànk yi nun la seytaanee def bu fajaree ñi tëdd ci seen lal yi góor ak jigéen nag noonu la noonu lay def góor ak jigéen waaw sappoor yi def la noonu waaw xam naa barki démb nag moom tuuti kon rek <laughs> lay xew-xew ndax sappoor yi kaay leen kaay leen kaay leen ba mat ñaari waxtu gisoo kenn te nekk ci côté sappoor yi ngeen baal ma nag waaw jege sappoor yi lool waaw nekk ci Castor sapeur yi jege la côté bii jege la ci Maristes côté bi nga am deux heures de temps tiim nit mu xëm waaw kenn ñëwut ñu wooña ci des ñoom far muy sone kenn jëlut mu ne àdduna tukki na ndeysaan ngeen baal ma yéen sapeur yi <coughs> tey teel a wuy ji ngeen baal ma yéen sapeur tey teel a wuy ji ginnaaw ku jaaxle yéen lay woo dee leen teel a wuy ji jar na sax bu leen fay oto bi bàyyi leen ko mu muy ralentir bu nee piib nga ngeen ne coow waaw te itam yoon yi nu def ci autoroute bi booy dem mu féetal la ndeyjoor ñu bàyyil ko fa oto yooyu dee leen ko jël nag ndax bu ngeen ko dee jël nun duñ ko jël man a gisaguma benn ci ambulance yeeg sapeur yeeg ñooñu ñu jël ko ñoom dañu ne ci biir circulation bi di wax piip piip te seenu yoon a nga nee à congaan seenu yoon a nga nee à lu tax duñ ko jël temps bi ñuy def ci biir nit ñi piip piip te am aw yoon buñ doon jël yoon wi nun lañu bàyyi leen ko ah loolu laa loolu laa dégg de day asu yoon su nekk à droite lañ fa bàyyil ambulance sapeur gendarme alkaati policier affaire yooyu lañ leen bàyyil dee leen ca jaar ko defee noonu kenn du ko jël bu ngeen ci jàll incha allah dem waaye duñ ca jaar ci biir nit jaar ma gis ñu corne pi pi gaa ñi leen xajal ñuy dem ma affaire boobu lu tax lu def ko fa kon congaan <laughs> loolu de jar naa laaj loolu wax dëgg yàlla ngeen baal ma ci ton boobu parce que affaire bi jaaxal na ma lool xam naa ko dem ci yéen tam jaaxal na leen ndax wutal na leen aw yoon spécial ambulance fa la war a jaar fa la sapeur yi war a jaar ah gendarme def naa seen motard yu fa la war a jaar waaye foofa ci ñoom kenn du fa jaar tey tere ko fa jaar tey ko fa jaar dee fa jaar ngeen baal ma dee fa jaar nag parce que seen seen seen roq la waaw ngeen baal ma ma yëm foofu bala mun waaye ci temps boobu nga xam ne moom la lislaam jox yum farataal ginnaaw bi julli suba fajar jógee am na julli gu ñu wax julli tisbaar julli tisbaar julli tisbaar day fekk jaaykat yi nekk ci magasin yeeg cantine yi gaa yi nekk ci bureau yooyu am na bu dee suñ réew mi day xew mel ni dara xewut waaye am na réew bu xewee dañu daal di ñëpp dem ci jullikaay ba màkk noonu lañ daan def dégg naa ma ngay tàmbalee xew wi dégg naa ma ngay tàmbalee xew yi waaye xaya ala ci tusbaar moom jant bi nekk fi kaba di sama lu ay jàppoon da ko war a bàyyi dem julli ji dawal ñaar rakk julli ñeenti rakk dawal ñaar rakk dellu ci sab liggéey hmm? waaw waaw cët tët tët loolu bu noddkat bi ne kaay leen rek xaya ala salaat ñëpp wuy ko waaye tuut la toog rek am geneen julli gu jot muy julli tàkkusaan mu neeti xayaala salaa moom tam fekk nit ñi marché bi tàmbalee dox client tàmbalee bari ñu ne la bàyyi li ngay def te dem julli ji loolu ak njàmbaar aku fit ak ragal yàlla aku gëm mooy tax nit ki yëlëb yépp dem julli ji te del siwaat ndax bés a ngi ñëw nga yëlëb yépp bu la neexee ak bu la neexut alal jii fexeel ba bum la moom fexeel ba moom ko hmm? waaw moo tax kon bu nodd jotee julli nga suba waaw ba niñ la noddal timis tisbaar ak tàkkusaan nekk ci diggante bi ak gee loolu te saabu bu lewoo da ngay dégg allahu akbar julli juróom ngoog nga dox ba mu yàgg ñun la weer wi dee na weneen weer teru na weer wi dee na weneen weer teru na ba mu yàgg ñun la yaa ci rajab ba mu yàgg ñun la yaa ci shaabaan ba mu yàgg yaa ngi ci ramadaan hmm, waaw yaa ngi ci ramadaan di weer woo xam ne xaaj Ibrahima saaxu ne ne ku ko fekke yëgal ne am nga xafuur yëgal ne am am nga rahim maanaam xafuur ga yàlla wax ne mooy xafuuru rahim nee na yëgal ne suñu borom bi suturaal na la ba noppi am na la may na la sansu fekke koor gi yàlla ñu fekk ma nga na lay ñëw buy ñëw yàlla ñu fekk buy dem yàlla ñu fi bàyyi mbokk yi yooyu day ca ngay dox ba mu yàgg ñu ne weer wi feeñ na ñu woor ñu wari ñu ne digg wi ñëw na bu digg wi jeexee ñu ne alxajju asuru maalumaat aj màkk jot na duggun ko nag korona fi mu nekk tabarkàlla ñay waaj ñépp a ngay waaj waaye nga dox ba mu yàgg ñu ne laa at mi kat jeex na tam xarit jot na ñu ne la ah wa aatu xaqahu yowma xasaadi asaka jot na mbokk yi yàlla na jàmm yàlla ci nekk ak seen njaboot bind nga noonu bu am solo yàlla noonu yàlla may nu def defal nu dégg ak topp bu leen neexee ci kanam surtout ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 88 628 98 98 nga ngeen ngeen bës de nu ànd seen jataay bi nga xam ne day tàmbali 8 heures di jeex 10 heures jataay bi leen di lay am ak mardi waaw ñu cee laajante laaj yoo xam ne xëy na jot ci micro bi bu ñuy def émission wala antenne day xaw a jafe jërë ngeen jëf sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar yi ci toi firiñ fàncaloon ko ci wolof ñaaneen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi waaye ak suñu àndandoo bi di C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara nan da loon ci waxtaan mooy di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu